Babouri Touré jërëjëf si ndéwalu am solo li nga indil ñu tey mu mel ni tey ndéwal yi dafa ñëw si waxtoom ma yàgg na si wax lu baree baree bari doomu aadama yoru dund yàlla dund yore dund waxtu wañ jàppe na ñun ñoo yor dund foofu la coono ni léegi nag lu tax ngay tuumaa sa soxna mbaa ñu la koy dafa am ñaari baat yu nekkoon mag ñi déggoon ko la mooy lu ñu xamee ak yoor mag ñi xamee lañ naan def léegi nag ñun dañuy yoor ndax nit ki li am fi nga koy amee moo tax mag ñi daan tànn borom jikko ju rafet daan tànn gor waaye daan tànn kuñ yar ndax daan nañ wax ne nit du xaaye lum xamul nit du maye lum xamul moo tax mag ñi fañ laan xamee ñun na fa ñu yor yor ma yàggu benn nga toqi mbaal la nga doon yor dagg rek nga bax te bis bu daggee mbaa nga toqire loo si mën a teg rek tuumaal ki nga doon yor na moo jàpp mbaa nga ne la nga jox moo dëgëru loolu rek a fi ne moo tax nañ daa xam ne tey bañ di yoor e ko di génnee nit kële jàpp mu dagg kële mën naa wax ne li ngeen ma yoor moo baaxul kee ne yow yaa jàpp tuumalante mooy am nañ da xam ne tey bañ di yoor yoor xamee nag ni nga mel ak jukko rek ngay xamee muy xam-xam nga am moom nga ko xamee xam-xam nga am ki nga xamee xam-xam baa nga xamee ko xam baa nga xamee ko man-man bi nga àndee si loolu lu mënta am jàmm rek kay am ndax fa ngay xam ne yow loolu du yow yaa ko xam la xamal nañ da xam ne te bañ di yoor ba yoor xewee lak weerante bi bëri xàccew bi bari tuumaalante bi bari ndax dara gënta ñaaw nga ñëw andi nit nattu ñëw dal la wér-gu-yaram waa nattu ñëw dal la la nga xamoon xamatoo nattu ñëw da doomu aadama bu ne da ngay manqué manqué fi nga ne ndax ku dund ñu ne yàlla nga gudd fan fan yaa nga wàññeeku fu na xooloo ko nga jël ci nga xam ne jigéen la nga war fekk ñu koy néew doole nga jéem ko dooleel nga taxaw jigéen baat bu ñaaw miti lool law ba lawalaale ko ci ay mbokkam jigula diw ba fi tàbbi ba fas ya ngee dee nag ya ngee dee ba fi tàbbi la gëj xam na ya. ba fi tàbbi la gëj a ndaw kàddu ñaaw kon yaakaar man na baye xaj ma turu andi gelu am solo nañ da baye at xel bu baax jigen jigen new doole tax ngir lañ koy mur di tek du xel mu gatt du xel mu naqadi dogal a borom bi la yalla tek ko sen kaw ñu nanguko ay way goor ni ay way nañ da bàyyi xel kaddu dañuy wax ne mool yëpp mën naa rëcc ñu yow dem ba mu des ba làmmañ am na yenn wax baaxul yenn kàddu baaxul wax dafay rafet am na ko xam ne si yàlla fa koy teg natt pour nattal ko waaye dana ko yàq ngir jaarale ko ci soxnaam wala nangam nañ di bàyyi xel bu baax nañ da xamee tey bañ di yoor ba yoor xewee la coow la coow li bari werante bu bari tuumalante